Baye Sarr moo la jël jàngal la yar la yir la nga leer duñ la kenn ni cim sëñ ba dafaal i eh waay ngërëm la say kàddu day dëggu say jëf di ci fedd li ko naw na la njaga yaay jàmbaar sa sakku nga ndam am na mi araf nee na waaxul téem xëy ci pant rek te noonu la waaye tey bu demoon bu demoon sept heures bu waxtu bi yaatu woon day li ma yéene ci sëriñ bi waaye nag sant nañ bu baax Sering bi ñoom lay di la ziar di la ñaanal gudd fan ak wér li ngay yéene ci sa yoonu maam yi yàlla sa borom defal ko mu ngi ziar di beral am nuyoo ak ziar bu ñu tuddee sëriñ bi rek tudd na ñëpp waaye sëñ làmp jëmb mi nga la ko ñaanal tawfeex ci sëriñ ak mboolem ñi nga xam ne bokk liggéey bi ñëpp soxna Anta Mbaye maa ngi kenn te mboolem njabootu soxna bi sëñ Mbacke bu la nuyoo nuyu na mboolem njabootu sëñ Talla Yacine di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga jëbbal ko sa jëriñ bu baax ñu ngi sëñ Basiru Fall nga jot leen ñu ko ci sëñ Modou Laye Fall mi nga xam ne mooy Cheikh Fall sëñ Modou Laye moom sëñ Talla Yacine moom mooy Cheikh Fall kon maa ngi koy siyaar moom itam bu baax di ko ñaanal tawfeex sama sëriñ sama xarit noo ngi jégalu ñëpp kenn ku ci nekk nga delloo jox ko la ñu jëlaat ñu daa mel ne kii wu ñu ñëpp bala baal nañ ñëpp ak yàlla yàlla boole jégal sëñ Aaroon moom lay jox sa yéen waaye ñoom sëriñ bi defal nañ ci lu muy jaa ngeen jëf moom làmp noo ngi jégalu bu baax nag. jërëjëf Ity Fall tawfeex ah buy daa maas waaw jërëjëf Baye Badara Seck jërëjëf Allah Allah Fall Charles. waaw waaye daa mel ne bii lañ ma jox. voilà. waaw. bismillaahi rahmaani rahiim. laa ilaaha illallaah. laa ilaaha illallaah. laa ilaaha illallaah. Muhammadu rasuulu